waaw ñun pour le moment ñu ngi def ay tournée en fait euh, parce que dañu dëgmal benn programme boo xamante ne ni euh, dafa aju ci seize axes seize axes yi dañ ko diviser en trois pôles parce que lu ñu jàpp mooy l'humanisme le capital humain mooy loo xamante ne ni mun na transformer mën na changer. vous n'êtes pas c'est vrai ah, loolu moo tax liggéey bi gën a metti parce que ñi koy wax en général doo gis ne su de façon concrète ñu koy appliquer. parce que dafa war a am benn suivi dañ ko war a def ci benn diir ñun nag xaaruñu campagne pour nekk ci li ñu ma wax sànq mooy 16 axes yi nga xamante ne am nañ ko mooy le capital humain aju ci ci premier point bi mooy santé éducation culture après ñu dugal ci li nga xamante ne moo lay réforme toutes les réformes yi nga xamante ne day dem ci transport ci institution ci sécurité ci défense après ñu dolli ci beneen pôle mooy pole bu mujj bi moom mooy développement buy aju ci lépp luy finance entrepreneuriat industrialisation ak urbanisme ak logement donc li tax ñu def loolu c'est parce que dañu def benn jàngat mhm. par rapport ak contexte actuel fii Sénégal wax naa ko sànq au niveau économique luy suñu principal problème c'est la productivité maanaam ci rapport ak statistiques yi nga xamante ne joxe nañ ko mu ngi toll ci benn pourcentage de 18 pour cent de façon simple sur huit heures ñun sénégalais yi lu ñu wax mooy une heure lañ ciy liggéey moins de deux heures xam nga loolu problématique la pour réew bi nga xamante ne ni dañu ne dañu nekk dans un pays euh, émergent beneen bi moom mooy le taux bi nga xamante ne ni mooy ñi nekk ci secteur informel bi mhm. il y a plus de quatre-vingt-dix-neuf pour cent pour cent yi kese ñoom ñoo ci ñoom ñoo xam ñi nga xamante dañ leen formaliser te état bi mën a jëfandikoo mën a jëfandikoo ci ñoom mooy taxes yi ñuy wax ak fiscalité beeg yooyu waaye chiffres yooyu ce sont des chiffres officiels mhm. yu nekk ci direction statistique qui ne reflètent pas réalité xamante ne moom moo nekk sur le terrain parce que sur le terrain wax naa ko fi sànq am na kuréel yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi yëngu euh, ci domaine coiffure ci domaine artisanat ci domaine culture ak yeneen ak yeneen mais dañu nekk ci des secteur informel ñooñu dañ leen war a formaliser te ñun suñu politique moom mooy quatre vingt dix pour cent yooyu noonu ñu jéem ko wàññi le maximum possible et luy indi loolu il faut que ñu jël nit ñoo xamante ne ni ñoom ñoo yelloo pour mën a accompagner processus yooyu parce que Sénégal dafa bëri agence bëri direction te kenn du ci def liggéeyam bu ci war li ñuy def moom mooy dañuy ñëw xëpp xaalis seddoo xaalis ku ne dem sa yoon et diagnostic boobu lañ ci am alors que liggéey boobu dafa nekk benn liggéey boo xamante ni dafa def trois ans cinq ans dix ans lu ñuy planifier la lu ñuy organiser la lépp ci discipline te ñun loolu la ñu gis ni loolu moo manqué moo tax ñu ñu dem à la base di waxtaan ak di def ay tournées